alors ñu ngi taxaw ak euh, Cheikh Oumar Talla xamante ne kenn dootu ko présenté fii di Sénégal Cheikh Oumar ñu ngi lay nuyu. maa lay fay maa lay fay. alors Cheikh Oumar tey mu nekk euh, anniversaire euh, choisir initiative bi nii est-ce que mën nga expliquer tuuti lan moo waral léegi. waaw d'abord ci banlieue bi laa dëkk donc ñu jaar ci école primaire yi ak circuit école publique ñu xam lan mooy bañ a am fourniture. ba nekk xale boo amul batane madame bi da lay dàq da ngay dem wut ay socc wala nga wut ay crème bant daal di koy wàññee mais terewul bu jàng jotee dinañ jàng donc on comprend que tey bu fekk yàlla may nañu tur euh, dañuy jëf rek initiative boobu pour jox ko en exemple ñeneen euh, suma anniversaire du ma def mumbaay du ma def xumbaay soxlawu ma soxla soxlawu ma cadeau mais li ma soxla mooy élève bu nekk dans mon quartier ma fexe nooy jotee fourniture euh, def nañ ko loo ci def du doy parce que boo defee ci xale rek def nga ci ëllëg def nga ci réew mi donc euh, ma andi ci ak sumay nit ñi ñu taxaw ma donc li ma amoon ma def ko sama doole fa lay am moy 340 cent yi nga xamni ne distribué naa ko dans le quartier euh, bo gisee ni ça c'est pris comme pas possible xalé yi enthousiaste mais li ma si neex moy xalé yi jigéen ñoo ci ëpp sax nak donc euh, mu bok ci plaidoyer bu ñu def pour que xale yi rester à l'école et que voilà on soutient l'éducation parce que Nelson Mandela dafa doon wax l'arme la plus puissante pour changer le monde c'est l'éducation et je crois que chacun de nous doit s'investir dans le capital humain pour man euh, lu ma war a def la en tant que citoyen mais en tant que doomu dëkk bi donc euh, pour man buñ ko defee rek c'est pour encourager xale yi ñaax leen pour ñu gën a góorgóorlu loolu daal laa ci jublu donc euh, ñu ñaanal ma rek man nag leen rek laa leen laaj mooy nañu am du bon note nañu ñu jàng parce que xale yi ñooy ëllëgu ëllëgu réew voilà d'accord nan la la def nga gis xale yi fu ñu dawee fu nekk di ñëw di jël si ay cadeau di jël si ay kaye nga leen jox loolu lan la la def waaw mais woow ma kenn ah dama ñëw sama jarbaat si laa dem la ñu woo seen xarit. mais xaaral woon léegi mais benn xale bu ko xamee day dem beneen koñ woo keneen keneen ñëw. donc euh, nga gis leen ñoom ñëpp ñu ñëw sawar a ñëw jël seen cahier comprendre nga ñu def ko ay lot pour élèves CM2 CM1. loo pour CE2 ak CE1 pour xam ñoo nekk primaire ak ñi nekk si maternelle bi donc euh, nga gis xale yi ndaw ndaw ñëw am na benn xale da doon jooy parce que nee na amul fourniture euh, te am na ñoo xam ne ñu ngi ak moom.

parfois amoo amoo livre parfois sa kay daaw ngay dëpp pour mën cee bind di nga xam lan mooy solidarité donc ñun xale ñu amee ñu delloo leen ko bi moo nekk ñaata édition bi mooy troisième édition d'accord euh, léegi lan lan ngay wax gars yi gars yi ci waaw mais c'est un message que je rek parce que euh, ku ci nekk rek am na responsabilité ci éducation xale surtout que euh, ndaw mi kër gi day yar mbedd mi dafay yar donc xale boo defal rek defal nga réew mi yëpp bu dëgg donc ku nekk si ñun am nga foo jaar am nga école boo mës génnee am nga benn xale boo xam ni mën nga ko jox benn livre am nga xale boo xam ni mën nga ko soutenir il faut le faire parce que vous ne le faites pas pour pas seulement pour bu mais bu le faites pour pour le pays réew mi àdduna yi si xam-xam la ñuy rawante ak réew mën nañ tabax ay kër ay infrastructure mais nañ tabax métier et je crois que école bi à partir de la base surtout xale ndaw yi fa la fa la fa lañ ko gën a soxlawee donc ñii ñoo nekk ci ci école banlieue yi parfois parents yi dafay nekk euh, difficulté donc suñ ko mënee rek euh, on le fait on fait avec beaucoup de cœur on fait aussi avec beaucoup de fierté et on pense que xale du ñu rusloo parce que chaque fois dinañ mel ni seen devoir indi ma seeni noonu war ma ko et man fierté boobu rek laa mën laa mën a am daal. d' accord mais daa mel ndaw nga ko jàppee mooy mujjee ngaa daj yoon

xem xem xem được xem được xem được

笑。